aji saar am na doom xew-xew am na dëgg du neex borom coow lu rëy li xew-xew am na sonko dañoo bëgg nag bis bi ñu tempo tempo ko dëgg du neex maam jaara faam xam naa ne moom mi ngi préparé ay valise ak ay dëmbooj préparé nañu sàjj nañu tubaari kàlla macha allah doom ju góor ji na xaw ma na kuñ koy tudde xanaa kii nu mu tuddati waay euh, Karim tuddee ko Karim rek Sénégal jëm kanam ngénte li nag tey ji la am doom aji saar la am doom jeudi bi ci koy ngénte ngénte lu rëy